ba bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm ci seen chaîne bii di Leader TV di wax ne bu leen fàtte abonné gannaaw loolu ñu ñëw ci information sport yi nga xam ne moo fi jot wàcc léegi gannaaw bi nga xamee ni ñoo nga sa tournoi ko safa boobee di amee si Afrique du Sud di doxal suñu gayndee góor yi ñoo nga continuer di doxal gannaaw bi nga xamee ne tey jii Eswatini nañ sa tournoi ba sa demi-finale foofee sa Afrique du Sud su gayndey góor yi nekkee si mbégte gayndey jigéen yi moom ñoo ngi si naqar gannaaw bi nga xamee ne éliminé nañ leen tey ji su coupe d'Afrique bu jigéen ñoo ñee am foofee sa Maroc gannaaw bi nga xamee ne Zambie gii nañ doon tasantil suñu gayndey jigéen yi ñoo ngi def 1 si biir match ba ñoo ngi dem tiro bi suñu gayndey jigéen yaa ngi dugal ñaar Zambie dugal ñeent moom gaynde gi ma nga continuer di doxal foofee sa Europe bu nu sukkandikoo si journaliste bi di Fabrizio Romano moo ngi ñuy xamal anglais bi ñu gën ko xamee ci Sterling Chelsea jël na l'international sénégalais bi ñu gën ko xamee ci Kalidou Koulibaly moomee di Kalidou Koulibaly journaliste bi mi ngi ñuy xamal ni benn accord trouvé nañ ko diggante club bi ak joueur bi mi ngi toll ci 40 millions d'euros teg na ay bonus ba tey moom journaliste bi mi ngi ñuy xamal naan kii di Kalidou Koulibaly moo nga foofee sa Londres di def visite médicale bu fa pare day jubali foofee sa Chelsea ñu ko ciy souhaiter bonne chance di leen jaajëfal ba beneen ak yeneeni vidéo jaa jëf